diggante Fass Boy. mbaalam lay indaale ba kër ma tëgg Daaru Ndooy ba bëggee agsi àndal ba Mboro kenn desul. daw na baax cokkaas na mais cokkaas na waaye gëmu ko. dalul dalul gëmu sax gëmu moom bëre bi la gën a bëgg ci xeex bëre bi la a bëgg. ndeysaan waree wa dem na kenn waaye car macha allah nag man ni ma ko gisee moom yoroo baax noo liggéey na liggéey na ba tamit bërëb bi waaw wóor na bërëb bi wóor na gën a eh, eh laay non man de d'accord uma laaw bi laaw waaw déedéet bëgguma laaw ko coono lay wane eh dëj eh wàcc jël ko takk ko ma koy mboot yoroo baax yoroo rëpp na ma ngi koy mboot baaduñ koy wër ndomba baaduñ la wër ndomba daw na la wër eh, ko sees daan na ko daan nañ laay Pythagore na ko moytul ma mbër mu xool mbër ba mu ko mu dëkku ko daan na ko kaa jëla ma laay jëla ma laay Pythagore Omar ñëwal jëla ma laay Pythagore jëla ma